ñaareel jàpp ñetteel jël ñeenteel man kay aawaak yooyu kay waa day takk jabar ma jox leen ko gaay mais pour day am ñaar ñett wala ñeent su gaay ragalee rek nañ ma yónni xam naa daaw ci xutba boo sàgganee may ñaan ba pare xutba xutba ba yëkkati jeetaay ba ñu dem ñaari minute yaa ngi nii ville de Dakar ak état du Sénégal soo sa déglu mu ne entre abattre Barth ou battre Barth <laughs> l'équation de passif attention débat la de. Hmm? waaw. Euh. débat la maa ngi jaale benn xalifis boo xam ne léegi lañ ma wax ne waajuram moo fi jógee soxna Ndiémé Baar. maa ngi koy hmm. maa ngi fii kii la conseil municipal ville de Guédiawaye. Hmm. dégg Dakar ak état mu ne entre abattre Bart. <laughs> abattre benn mbatt ko yor bal wala fete loolu koo dóor ci bopp l'équation mhm. de passif ñu ne demoon nañu cour d'appel ñu dëggal condamnation ba ñu ne dañoo dem cour suprême ñu dëggal ko léegi nag juge bee ci des. Mhm. ñu appliquer loi il va perdre son siège de député. Mhm. dana bu ñu ko appliquer day pertam maire Dakar waaw cinquante deux milliards de budget ah dugg na ko jënd moom it bi mu fi indee wàllum parité ba dindi Abbas Fall premier adjoint indi def de dindi waa Pastef ñu ngi ko dencal maire googu ba léegi nii lay ak li ndax Pastef bu ñu gañee nguur gi dañuy dal ci kawam nangu maire bi waaw wala déet il suffit juge bi appliquer. Barth wàcc dana ko def waaw wala déet gars yi est-ce que. Hmm? non pour man. man je hmm? leen question no non non non non. ah en tout cas. non en tout nekkuñu ci logique bi dafante pour man. man nag man nag man jàngat bu ma ci def Ameth. waaw. fi mu toll nii. waaw. Barth en tant que maire de Dakar. waaw moom moo gën a soxla état. waaw. que état. waaw soxla Barth comme maire de Dakar. xaw ma ndax xam nga fi may waxal. bu baax ah, koy waxal ni waaw parce que Barth maire de Dakar bari na lu mën a lu mu bëgg a def loo xam ne bu ko ci état jàppalewul mm-hmm. du ko def donc moom moom moo ëpp intérêt bañ a entrer en conflit ak état bi. Mm-hmm. yaa ngi fàttali ko projet projet bi fi Khalifa Sall. place de l'indépendance waaw kay. ak place la nation. xaayaan ku dégg séeréer. Mm-hmm. xam nga yow da ngay topp xibaar loolu tax nga nekk. Eh. <laughs> xam nga kaaw parti hmm? ba ba ko Khalifa Sall yëkkatee. gars dañ ko dañ ko dañ non dañ koo teg ci suuf. bloqué ko partout. empreinte obligate. Hmm. Borba. waaw yooyu yëpp affaire état la mais bu loolu weesoo. Hmm. mairie ni mu nekkee un démembrement de l' la mairie. indépendante de. la mairie. la mairie c' de l' état. waaw. elle représente l' mais. ba pare. Mhm. dépendre nag ci. Mhm. ay structure état. Mhm. est-ce que xam nga ne yow boo lancé benn marché. déggoo ma de. boo lancé marché ba gars yi soumissionné bañ ne société nangam moom moo gagné ba affaire ba dem ca préfet. préfecture du démembrement état moom it. waaw c'est le représentant commandement territorial de kooku lañ dénk lépp lu jëm ci wàllum contrôle de légalité. su yeggee au moom mu jox la aviam directement dépp da ko yóbbu DCMP. direction centrale des marchés publics. pour avis. gars yi xool mën nañ ko wax ne ko société bii gagné le marché là noo kii compétent ko remplirul conditions yi su ñëwee préfet bi da koy rejeté ñu lancé waat encore marché. yóbbu ci journaux yi. lancé ah. gars yi ñëwaat. appel d'offre. comme tamit mën nañ ko bañ a rejeté au niveau de la DCMP déggoo ma de. Mm-hmm. mais ñu joxe ay correction mm-hmm. ay recommandations ay recommandations su préfet ñëwee ne la lii ak lii ak lii moo ci manqué moo dalil waa léegi loolu ne yëpp yow léegi boo nekkee maire. mooy liggéey ngay expliqué léegi nii ne maire gën a soxla état. waaw mm-hmm. ah, waaw. waaw boo gars dégg gars yi bu ñu la bëggee bloqué rek. bu ñu jëlee décision xeex la mais stade yaa ngi nii stade yi nii. waaw dañuy jël stade yu leen neex na ministère des sports stade yi lay defar ne la ca seppe teg la ne. nekk c'est un maire opposant xewoon na fi pour la réfection de certains stades la de des départements du Sénégal. des départements. Mhm. mais mais euh, après bi communiqué bi génnee moi j'ai vu que ni le stade Amadou Barry était exclu. waaw parce que léegi nag après yooyu noonu ay jàng ay jàngatu ay jàngatu politique. parce que ngay gis quoi. non c'est purement moo tax moo tax ma ni moo tax man ma ni. waaw parce que dañu gis nga soose gis nga man pour man lii tamit. lii nii lii nii lii nii du débat <laughs> xam nga lu tax. man na ma yaakaar ni rupture bi bi gars yi woote. waaw non ils vont de telle sorte que mm-hmm. duñu appliquer les mêmes erreurs que ñële. merci xam nga lii nag bon mën na nekk débat dans la mesure où dañu ko tàmmal xam nga xam nga xam nga mooy li ñuy wax gis nga mën nañ la tàggat ci loo xam ne dafa dafa dafa dañ ne mbaam pour mu pour mu pour mu nekk il faut nga dóor ko. waaw mais pourquoi waruñoo mën a dem ba moderniser ñu ne sax ah léegi sax mbaam yi dóoratuñu leen parce que da nga koy gis dans le jargon dañ naan mbaam yi sax dóoratuñu leen. Ah, cest à dafay war a am amélioration man yaakaaruma ni l'état du Sénégal actuellement dina mener un combat envers Barthélémy Diaz. mais ak batt mu neex ko ak mu naqari ko. Mhm. non dina coopérer ak état du Sénégal comme ni nga ko waxee soose wax ko mairie démembrement état la. l'état n'a pas pour vocation actuellement le président Bassirou Diomaye Faye en compagnie du premier ministre Ousmane Sonko ñoom amuñu lii nii lii nii lii nii lii nii nii nii comme mbëbët ci li ma yaakaar ñëw pour abattre Barthélemy waaw pour wàccee ko mhm. non non non xam nga li ngay wax noonu ne dañuy liggéey par force mhm. neex naqari la neex naqari parce que mairie ci mhm. état bi la bokk ci état bi la bokk yow est-ce que yëg nga ne tapis rouge boobu noonu ñuy lal feetu 4 avril loolu c'est une tradition c'est la ville de Dakar moom moo koy defar. moo koy defar waaw. c' est l' armée qui organise mais le tapis rouge bi ñuy lalal président de la république. par force la. mënul tradition la. dégg hmm. ñu continuer ah. ati. reddition des comptes le retour de missile de Mimi. <laughs> Mimi nee na yónnee nañ ko ay inspecteurs daanaka benn yoon ñaari yoon ñetti yoon waaye xam nga tontu la lan la. Hmm. def naa deful. Hmm. c' est non non non deful dara. moom mi mu yemu ca de. Hmm. Aminata Touré jàpp na ne dafa am yenn ci taskatu xabaar yoo xam ne dara animé wu leen lu dul wàllum politique. Hmm. <laughs> ñoo ko bëgg a tilimal waaye xam nga lu muy wax Diomaye ak Sonko monsieur le président de la ak premier ministre. Hmm. xam nga coow li nan la nañ jël nañu mille milliards yi. <laughs> Covid <laughs> eh ni muy nee na eh eh eh ma eh mille milliards yi. Sonko junni milliards yi. foofu mbir mi nee na gis nga coow yi ñuy wax ni yëpp jaru ko. Diomaye mm-hmm. na yërnu ji koro gi Ousmane Sonko yërnu ji Covid bi <laughs> lii rek la. muy koro Covid. muy koro Covid. koro mooy Covid Covid mooy koro. waaw Sonko Diomaye Diomaye mooy Sonko. d'accord mais koro mooy Covid Covid. mooy koro mooy koro. muy turee leen internet 24 heures yéen a ñëw ak ñun ci est-ce que gars yi la réalité du pouvoir. Mm. gars yi liñ samp yëpp est-ce que danañu wàccoog moom. Hmm. ay ndax sénégalais dinañ leen mën a xaar. Hmm. l'exécutif face au défi de sa vocation. Hmm. fay Sonko Sonkoy fay fayee Sonko Sonkoy fay. Basay Ousmane Ousmane ay Bas Jomaay Sonko Sonkoy Jomaay ñu nii. l'exécutif face au défi de sa vocation. nee na ñu jox ma journaux yi dama laaj présenté yoo xam ne. yëpp leen ko yéene kaay yi.